تشكرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S taxaw jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñu jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun mbokki internet yi di leen fàttali bu leen di fàtte aussi bës cloche bi am suñu ay information bës mën a abonné aussi yokk abonné yi gën a participer également euh, lecteurs yi gën a dugg si bu baax a baax euh, li ñuy waxaat aussi mooy euh, ñu koy zaare bu baax a baax Serigne Mahi Niass xalif général bu fële ci Medina Baye ci ëttu maam Baye El Hadji Ibrahima Niass waaye di ziare bu baax a baax di ko teg ci loxo Serigne Mahi Cissé mi kàddu ga ñu ciy ziare mboolem xalifa généraux ci Sénégal yëpp ñu rafetlu bu baax a baax taxawaayam aussi ci umma bi euh, gis nañ également depuis euh, bi mu accédé pour la xalifa gi euh, gis nañ bu baax a baax également ni mu taxawee umma bi ni muy gën a nasa diggante yi di gën a defar di gën a rataxal ñëwam ñëw si Dakar nag aussi dana mën a nekk brèche occasion Euh, pour que aussi puisque ñu ngi jëm ci campagne électorale gis nañ les tensions gis nañ violence bi fi am fan yile dañu fexe ba li nga xam te moom moo di rek euh, ñëwam ñu profité ci mu mën ñu ñaax parce que gis nañ également mi ngi recevoir ay hommes politiques euh, di recevoir ay kilifa ay ay dignitaires loolu aussi dafay am solo parce que ñoom kilifa yi loolu lañ leen xamee loolu la ñu yaakaar ak ñoom ñi ngi fàttaliku Serigne El Hadji Bara Mbacké ñëwoon na fi seese Abdoulaye Wade fii ci palais mu nekkoon également occasion bu am solo gis nañ ko Serigne Babacar Sy Mansour gis sëñ fi xalifa yu bëri yi nga xamante ni wax dëgg yàlla am nañ taxawaay bu am solo ci li nga xamante moom moo di euh, yoonu euh, umma bi waaye tamit ci askan bu Sénégal digg so nañ ko Serigne Mountakha ba Bassirou ci jamono yële bi dëkk bi dina jeex kon mu mel ni kon ñoom ñi nag day montre montre wane que ne le pouvoir spirituel dafa war toujours le pouvoir temporel dafa war toujours bàyyi xel ne le pouvoir spirituel moom rek moo fi nekk chaque jour ma wax ko mosoo dégg l'ancien wala l'ex xalif te ñoom da nga dégg l'ancien président l'ex président l'ex directeur dañ fiy jugee nguur gi ñu yor c'est temporaire maanaam c'est dans le temps c'est éphémère day jeex alors que ñii suñu borom ñoom ñoo leen tibbal ci ci ci ci ci ci al ñoom ñooy ay xalifatu am fir ardi ci ci nguur gi suñu borom am ba ñoom ñu représente leen ci lañ leen cofal as ñoom jox leen ko moom ñoom ñoo ñe di nguur gi nga xam ne yàlla nee na bu ma leen koy jox dama leen di neexal jox leen ko ndax am baax waaye su ma koy nangu dama koy naan foqarti nangu maanaam boo dëgëree bopp mi ngi mel ne tey moo tax kàddu président Macky Sall yëkkati fële du ay kàddu kilifa daal du ay kàddu kilifa ba ma amagul ba ma amee pour man sax erreur de communication dëgg la def waaw day mel ne kon nguur gi nga am nii ah am nga doole kon lu la neex nga ko def danga koy xeexee ku la neex eh, ku la neexul loolu baaxul gis nañ ko ñu ko fi amoon ay firaaw nag ñëpp fa ñu mujjee ñi ko fi amoon ci dëndu Afrique ñëpp fa ñu mujjee kon nañu delluwaat te xam ne nguurug suñu borom mooy nguur gudul jeex moo tax nitu diine yii nitu kilifa yii dañ leen a war a wekk jox leen seen cër jox leen seen waay fonk leen teg leen fu kawe te xam ne Sénégal gii am na lu bëri bëri bëri loo xamante bay nañ ko fi waar seen maam yi bay ko fi waar ñoom ñu gën ko fee bay waar ndax nag doomi jaan jaan la bu la ci màtt rek dangal ja day des kon Cheikh Mahi ñu ngi koy ziare waat bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ak bi yëpp di ko ñaanal mboolem xalifa yi ak Cheikh Ahmed Tidiane Niass te leew na ña seen ndax lii kat lu rafet la mënoon naa toog ci pénc ma kat yoru kurusam te lu baax rek lay def it de waaye ngir ne ak xol bu rafet ak bëgg doomu aadama tax na mu déplacé wu jug ak jug ni mu jafee ci kilifa ñëw fii ci Dakar gi nga xamante ni nag yite woo nañ ko de ndax Dakar location bi seet na lool xëy na dina ci ñaan Dakar dund gi seet na lool Dakar bi dikk bi seet na lool Dakar dund gi tar na tar goo xamante ni ak ñëwam sax xëy na jour boobu muy ñëw na cëpp fii Dakar. am na ku amoon xol bu métti loolu waaye bu ne dégg turu Cheikh Mahi Niass bi rek xol bi dana sedd kon Niass Koumba Abdoulaye yàlla na nga fi yàgg te wér ak mboolem xalifa généraux yi Serigne Babacar Sy Mansour ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndax seen yàgg fi mooy suñu njariñ waaye pouvoir temporel politiciens yi bàyyi leen xel ne réew mi moomu leen ko moomu leen ko liñ leen dénk ay ndombal tànk la yoo xam dañ koy tekk day jeex lu lu jeex amul yàlla rek moo yor nguur gudul jeex tutil mulki mimman tashaa'u wa tanzi'u